l'esplanade de Dagana soo xoolee esplanade bi dafa dend ak école bu ñuy wax école 1 école 3 bu Dagana kii ay cantine la yéen fi implanté SDE bi moo nekk si ginnaaw li ngeen gis nii esplanade bi après dex gi moo nekk nii fu nekk benn berger ba nga xam ni tey euh, ndëgëm daf si war am benn GIE boo xamante ni bii GIE de développement la ou wax dëgg yàlla fii moom Euh, ñëpp fii ñëw hein, même les étrangers dañ fii ñëw mais c'est tellement dégueulasse ba nga xam hein, les enfants de ndëgëm ñoo jël responsabilité chaque année nettoyer ko bu mu set hein, pour ku ñëw mën a am vision bu rafet mën fi toog jàkkaaroog ndox mi jaamu fi yàlla lii ngeen gis nii les responsables sont là muy Mbaye Ndiaye euh, Aline Fall ñi ñëpp c'est des enfants de ndëgëm ñuy ñaan nag képp koo xam ne kii daga na soxal na la nga def ci benn action gis léegi rek ma jël kenn ci gars yi Mbaye Ndiaye da ngay tourné wan ma kanam ma bëgg nga nga nga nga wax ak diaspora bi wax ak yéen waa ndëgëm yi jël initiative wu euh, rebooru dex gi tolloog esplanade ndëgëm ba kër préfet nga chaque année ngeen koy nettoyé nan ngeen bëggee ñu jàppale leen si loolu bisimilah. ah salaamaaleykum waa diaspora ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa gis nga nañu jeunesse ndëgëm ñoo jóg pour def nettoiement nettoiement bi nag duñ ko daan def chaque année mais ñuy jàpp ni buñ koy def rek bàyyi après day saltewaat léegi cette fois ci ñu jël di suñu décision di di ko veillé di si veillé quoi di le temps chaque weekend lu ñu ci waay mën jàppalee rek baax na parce que lii bu ñu koy def pour ndëgam kese kese kese parce que pour Dagana la parce que Dagana bu mu daj benn bunt bii moo fi am actuellement parce que yeneen bunt yëpp ñax mi nangu na ko zone mbali salti nangu na ko moo tax ñun cette fois yi nag ndëgam nag zone bi duñ ko bàyyi loolu rek nu ñuy ñaan loolu lañ si mën def nag ah xeebu na dara waaw ay bonne volonté rek ñoo fi nekk loolu ñuy ñaan nag chaque weekend ñu ngi fi lu waaye am nag bëgg nañ ah lii mooy euh, esplanade ndëgëm euh, su ngeen xoolee rebooru dex gi dafa bare ay salte yu fa nekk gis ngeen ñax mi si dex gi nii xale ndëgëm ñoo am habitude yu di ko dindi avec les moyens de bord am na ay jamono nag c'est la municipalité qui nous a aidé ba ñu taxawal fi benn projet boo xamante ni uniquement c'est pour enlever les ordures au bord du fleuve Ni avec euh, les maigres moyens yi nga xam ni moom la xale ndëgëm am gis ngeen nii ñii yëpp ay xale ndëgëm lañu gis ngeen rebooru dex gi dam leen di wonde par rapport ak li fi xew gis ngeen chaque année c'est comme ça ou chaque deux ans dañ koy enlevé ñuy demander aux enfants de de Dagana du diaspora ñu fexe ñu ñu jàppalee xale yi nga xam ni euh, at mu nekk ñu fexe dindi li fi nekk gis ngeen lii laa leen doon woon léegi léegi ñu commencé woon ko muy ay xale ndëgëm yi nga xamante ni chaque année ñoom ñooy nettoyé dex gi gis ngeen ñax mi moo nekk ci dex gi nii xale yaa ngi koy dindi ak ay ay moyens de bord ak ay moyens de bord parce que lii c'est un projet boo xamante ni bii yàgg na ah gis ngeen ay brouettes yu nu yor ak poubelles yi lii ak risque yi ñuy jël amul gant amul masque amul dara amul amul dara gis ngeen gis ngeen gis ngeen. li projet bu yàgg la tay xale yee ko jël en charge ah, ñuy ñaan képp ko xamni ki kii nga wala bonne volonté nga di yëgg ci walu développement nga jappalé xale yi ah, pour que li ñu ni nii ah, mu sax mu jëm kanam li ku mu doyul dara du la hein té kenn fayu leen amul luñu leen fay mais bëgg seen dëkk bëgg seen gox motax hein ñuy woné vidéo yi ci walu développement am ay responsables yi nga xamni yalla may nee la nga xamni war nañu mën a dimbale jeunesse exceptionnellement la jeunesse de Ndegem hein ci wàllu liggéey doomaanu Ndegem yi nga xamni ñoy gis vidéo yi hein, ñu ñu bëgg ñu jappalé xalé Ndegem ci projet yi nga xamni ñu de développement la ci walu OMVS wala walu fenen ak fenen ñu ñu consulter ku ne ak fo mëna a nekk gis nga liguey bi nu mu rafété nu mu sellee par les maigres moyens la ñuy liggéeyee liggéey bu mu ci ayib bi